woon fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk ak xarit yu ñuy seetaan ci Sénégal TV dal lañ jàmm ci seen revue de presse quotidienne ndax bu ngeen xam kër yéene kaay lan lañ fësal tey ji kon nag bismillah ñu àndandoo xuus ci biir jàppazon actualité yéene kaay bii nu naan l'observateur ci xëti mu njëkk moonu daal di firil jubbu maam Kocc Barma mi waxoon nii ca dëgg-dëgg buur du mbokk yene kay bi feussel président Macky Sall mi nga xamni amna waxtan lo ba nga xamni Barack Obama mi ngi doon ñëw Sénégal ak yene kay bi nga xamni mom lañuy wowe foreign affaires kii di président Macky Sall yëkkati ay kàddu ci mbirum Hissène Habré nee na loolu nag jot na sénégalais yi ñoom africains yi ñuy juger seen ay propres leaders moo gën ñu leen di yóbbu ci bitim réew waaye la ca doy waar mooy nee na jiitu jëwriñ yi Abdoul mbay bis bu xamee ni loxoom dafa taq ci mbirum Hissène abre ci wàllu lubal ci wàllu xaalis bu boobaa nag ca dëgg-dëgg dinañ xam ni ñàkk ca xam la tub lépp lu mu laaj dina ko def ci dinañ yaakaar ne bu dem bu ci biir ñi day am ñu mu yërëm yuuxu dina ji fuñ ko foogeewul ci wàllu luubal ak alal joo xam ni dafa tegu ci noo xam ni amin ba xel da cay teey ñi ngi cay tongal ki nga xamoo di Karim Meïssa Wade le populaire moo ko daal di fësal Karim Meïssa Wade ginnaaw li nga xam mooy cour de répression de l'enrichissement bu buñ ko toppee ci wàll woowu toppaat nañ ko ci mbirum ANOCI ni fàttali ni que Latif Coulibaly génne woon na fi téere bu naan compte et mécompte de l'ANOCI joxoñ baaraamu tuuma Karim ci ni mu yore woon mbir moomu nag topp na ko ba indil ko jeexi jaaxa yoo xam ni buñ ko dégloo fi nga xam mooy procureur bi jox nañ ko dossier bi kii di Abdoulaye Baldé ma ko gunge woon tamit day jamono yi neen loo xam setul ci mbir moomu ca boo moytuwul moom tamit tongal gi dina ko topp l'observateur nu bàyyi ba tey ci xëtam mu njëkk day wéy ak ñun ci wàllu traque des biens mal acquis gis nga IGE moom ba mu defee li nga xam mooy enquête am Nafi Ngom Keïta jébbal këyit yi ki nga xam mooy président Macky Sall lañ ca gis ci wàllu lënt lënt dafa doy waar ki nga xam moo di Samuel Sarr mi nga xam moom la ñu dénkoon ci wàllu ministère de l' énergie ah moom nee na nag ci loolu gré à gré def na marché boo xam ni 495 milliards yoo xam ni lu doy waar la ca gën a métti nag mooy dafa joxe xaalis boo xam ni pétrole la bëggoon jënd waaye ndox lañ ko jaay mu nekk loo xam ni ku ko dégg aree daanu ci suuf oto bi nga xam ni ci wàllu. ah ANOCI ñi ngi ko doon dawal oto yooyu daamar yooyu toll na ci tolloog ñetti milliards yu tegal 700 millions millions yoo xam ni ci wàllu annonce yi oto yi nga xam ñi ngi doon dawal ñi ngi leen ci tuumal 700 millions yoo xam ni 3 milliards jënd nañ ko ci ay oto teg ci 700 millions yoo xam ni ca dëgg-dëgg loolu leer LONASE nee nañ moom moo doon financé campagne électorale bu maître Abdoulaye Wade ki nga xam moo di Fesman bi 75 milliards ëppal nañ ko ci ci li nga xam ne dépensé nañ ko ci am na ñoo xam ne nañ ci topp bor lu tolloog 3 milliards ki nga xam moo di Abdoulaye Diop mi nga kon jëwriñ bi nga xam moom dénk gafak réew mi tuumal nañ ko ci wàllu fraude ak li nga xam mooy weexal xaalis moom tamit ñu ngi koy topp ci wàllu alal joo xam ni ci fraude la daal di tegu duñu tëjugum chapitre boobu ci la tribune yéene kaay mu dikk fësal Mamadou Seck soo leen ko déggee moo nekkoon président assemblée nationale ci nga xam mooy président Abdoulaye Wade waaye moom nekkoon na jëwriñ bu nu dénkoon wàllu infrastructure dañ ko woo ca yoon CREI da koy déglu ci wàllu Karim Meïssa Wade ay mbir yoo xam ne ñoo ko moomoon Mamadou Seck ci 2006 tekki woon na ndomba tànkam dellu si waat ñu joxaat ko beneen ndomba tànk loolu nag dañ ko ciy déglu ngeen ñu xam lañ ko dénkoon naka la ko doxalee ak digganteem ak ki nga xam moo di Karim Meïssa Wade moom tamit ay niir yu lëndëm ñoo ko daal di tiim l'observateur moo daal di fësal ki ni woy Ibra Ka soo leen ko déggee la classe lañ koy wooye moom nag nekk na comédien boo xam ni gën nañ ko miin ci TFM la gargote de Poté moom yëkkati ay kàddu ci wàllu carrière comédien fi mu ci duggee ak fi mu jaar mu nekk koo xam ni ko gën a metti nag ci addunaam ci jaar-jaaram mooy papaam bi nga xam dafa génn àdduna boobu moom mu nekk tout amoon ñaari at loolu la am na lu bëri nag loo xam ni soppi na ko ci dundinam muy fàttali ni gitaar bi mu njëkk am ki nga xam moo di Alaaji Fay étoile 2000 moo ko ko jaayoon mille francs juróom benn téeméer la ko jëndee ca boobu lay carrière am mi ngi koy wéyale ci wàllu comédie ñëpp ràññee ko. la tribune yéen kaay mooy wax la bayk allahumma la bayk la bayk la sharika laka la bayk ñuy wàcc suñu ujaat yi ndax dinañ koo wax ci 2013. li nga xam mooy campagne bi ñu war a def pour dem aji màkka ca dëgg-dëgg taq na suuf ak làmbatu ak xumtoo boo xam ni leerul moom moo fa nekk ñi ñu ko dénk nag ci wàllu doxalin ba nag doy na waar nee nañ juróom benn fan kese moo leen dese ngir ñu xam ndax dañ leen di déclarer forfait maanaam dañ leen di mën a boole ci mbir mi du duñ leen ci boole moo tax ñu war a gaaw waaye 2013 bi daaw 10 000 personnes lañ leen mayoon fukki junni année bi nag may nañ leen lu tolloog juróom-ñetti junni yi ca la ci ëpp nag ñi nga xam mooy voyageurs privés yi ñoom ñoo leen di yóbbu. l'observateur daal di fësal li Kocc Barma waxoon mag mat na bay cim réew kii nag moom la ñuy wooye Alaaji Mansour mbay Alhaji Mansour Mbaye nee way juram bu goor mo nekkon ki doon jotali kaddu ki nga xam moy khalif bawon Serigne Babacar si mom nak mu di koy don ci mom di jotali ay kaddu ki nga xam moy Mam Abdul Aziz Si Dabakh lamuy muy 1997 date la bo xam duko ko ci la Mam Abdul Aziz genn aduna 1951 duko ko Sengor mi nga xam ni Lamine Gueye moko dugulon ci politique seen diggante dem nan ba xëccoo réew mi ñom ñaar ki nga xam modi di Senghor di daan ki nga xam moy maître am bi Lamine moom né 1972, 1962 loolu tamit kenn du ko fàtte mooy at mi nga xam ni crise institutionnelle amone ci biir rew mi Senghor di xëccio ak ki nga xam modi di Mamadou Dia Mamadou Dia japp ko ci dugal ko ci kaso date la bo xam ni des na ci xelam waaye ba ci gëna metti moy le 19 mars 2000 bi nga xam ni Abdoulaye Wade dan na nga xam moy président Abdou Diouf dal di nangu rew mi nee na keroog lu ko naqari joyul de ay rangoñam fer na waaye nag am ci naqar bo xam ne du ko faté tribune yéen kaay daal di fësal Cheikh Modou Kara Mbacké ci wàllu Bamba fépp dem na fi nga xam moo du sedd dëkk bi ñuy woowee Stockholm dëkk bi ñuy woowee Stockholm foofu nag mooy capital ba ubbi na fa nag waxtaan ak ay jàng ak tëgg koo xam def nañ ko ci walu musique spirituelle mu dal di lancer concept boobu mu nan Bamba fépp Bamba partout Bamba merci Mon koy wéyale ci biir Europe kooku moy Cheikh Ahmadou karam bakay le général de Bamba mbok ak xarit ci ni setan wax waxat du bëri wax leral ay wax la li leen bëgg leral nak moy seen xibaaru xew-xew jamono waxon nan leen malakatul maut bi nga xam moy jangul li nga xam mo di ruuy ndekete yo camion yeeg nday yek bus yi ñoko gëna gaaw dégâts yi nga xam ñu ngi koy def ci tali bii doy na waar démb am na accident boo yéeme boo xam ne am na fi nga xam moo di parcelle foo leen ko déggee foofu mi ngi nekk ci buntu fi nga xam moo di kaw la ko booy génn bus bi nag bus malien la bu dal ci kaw kam camion boo xam ne doon yóbbu xorom am na fukki nit yu tegal yu fa ñàkk seen mbakkan bakkan 66 blessés juróom-benn fukk tegal juróom-benn ñàkk nañ ci seen bakkan ña ca gaañu ña ngay wéy di gaañu ba tey blessé yi ñu ngi leen di jël di yóbbu fi nga xam mooy hôpitaux yo jamono yi ñu ci bëri nag ñoo ngi leen di jàppale mu nekk mbir moo xam ni képp ko ko fekke tiis na la moo tax ñu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jàllee mbokk ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ñu seet yéen kaay bi ñu naan la tribune lañ cay teg moo di tës boo leen ko déggee dafay daal di fësal ki nga xam ne Ousmane Thiam soo leen ko déggee moom la Youssou Ndour wayoon di ko wax yaa xuus jàll moom jamono yi ma nga rëbës denc nañ ko ci mbirum luubal ci ay këyit ak ay visa yoo xam da ko doon wutal nit lëkkaloo ci ak ñi nga xam ñoo ngankoon nguur gi moom nag jamono yi jëloon na fi ñaari caméraman yoo xam dafa ne RTS lan bokk ca dara ju ci dëgg mu wayaase looloon génne leen réew mi jamono yi nag neewoon nañ digganteem ak Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko daan jàppale ak ñi nga xam ñoo nekkoon ci élection yi loolu nag Souleymane Ndéné Ndiaye weddi na ko ba tax na Ousmane caam nee nañ déglu nañ ko ca boo moytuwul dina toog lu tolloog juróomi at ci biir kaso bi Ousmane caam yaa xuus jàll ci biir lëbës ndax day xuus ba jàll wala dina nekk ci lëndëm joo xam ni màkkum lëndëm bu ko kenn dajatul mu daj boppam le populaire fësal sunu gaynde yi nga xam ni ca Abidjan ñoom dañu war a taseeg équipe Côte d'Ivoire ci wàllu basket nee na nag am na mbir bu leen topp koo xam ne ku ko dégg da nga naan kaw teef ñoom nag démb dañu entraîné jël seen kaar ji ñibbi ndekete yoo yoon ba la daal di explosif ni tëll daal di toj loolu ba mu amee ñu ni lii mbirum xarfa fuufa la mbirum xonjom la boo xam ni ivoiriens ñoom ñoo leen ko daal di def waaye ñi nga xam ñooy taskatu xabaar yi nee na loolu du dëgg tey ñoom ba ñuy génn fi nga xam mooy entraînement da doon taw ñu ni gars yi yóbbaale lañu waa fédération bi bañ ñu tal seen auto daw tuti pono yi ni teul ñu ni li seen ak mo leen daldi dal mu melni yene yéene le borom tas cay fanan kon nak taskatu xabar yi nee kex-kex ñuy ree ñi nga xam ñoy way federation bi nga xam ni dañ leen soxare won kon nak mbok ak xarit ci ni setan ka nek ci woné xey yu balé ci kep kuy wacc yoon do ci dekk fi ngay mujjé moy fi fan la fi fan la fi nak moy seen xibaaru tagat yaram dañuy dem dikat ci liñ leen waxoon tribune sport moko ko di fësal sunu gaynde yi nga xamni ño nek ci walu basket bi tey la ñuy daje ca Côte d'Ivoire ak seen équipe nationale waa Abidjan ñoo leen di dalal Ivoiriens yi nekk ñoo xam ne dañ leen ragal dañ ni ñoom ñooy suñu bête noire maanaam ñooy suñu doomu bàjjan yoo xam ni fépp fu nu fekk dañ ni fët pët nu pët yu metti waaye tey ñëpp ne nan gaynde njaay mbara wàcc di xaar ci suñu gaynde yi nag ca dëgg-dëgg na ñu am ndam ci kaw Ivoiriens yi ndaxte ñoom na mu tàmbalee dóor Égypte loolu nekk na loo xam ne rafetlu nañ ko bu buñ fa jógee dañuy dem ci yéenekaay bii nu naan suñu làmb kan la fa fësal kooku mooy doomu Double Less di magu Sa ñee di ko duppee Triple Less te ku takk ngemb ci làmb ji mooy sa buur gaynde ca moo la sut Less kooku mooy Balla gay numéro 2 The Lion King ci ay kaddu tontu Modou mi nga xam ni jamono mi toppe na ko mooroo Lo ŋànk na ko ŋànk boo xam ni ci presse bi lu ne mi ngi koy teg ci deram waaye Balla gay ca dëgg-dëgg wan na nag nit ki li nga ko magee da nga ko koy wan nee na Modou aw ma jotam na wax dël mbuus dëpp ci gémmiñam di wax fii ba suba ndax dina fa fekk dara man ko tontu parce que man aw ma jotam dama am yeneen mbir yu may daal di lijjanti kii di Balla Gaye waneen ca dëgg-dëgg léeg léegi nit ñi boo leen rawee ñu dabee la lammiñ ca moom nee na nag ca dëgg-dëgg képp ku lay wax waxu ginnaaw ginnaaw la la féete moom mi ngi ci kanam ma ngay wéy di dem yéene kaay bi dikk ci Cheikh Tidiane Diaye bi nga xam ni moom nee a ah tekki na ndomba tànkam ci boppu CNG nekkoon fa depuis 1994 xaatim téere boo xam ni bataaxal bu mu jox ki nga xamante ni mooy euh, Alioune Sarr nee na nag décision bi mu jël mbiru boppam la maanaam ay mbootu biiram moo tax mu bàyyi waaye nag décision bi mu jël du ci dellu ginnaaw bàyyi na wan na li nga xam mooy CNG ginnaaw mi ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal na seen ngelaw wéy waaye moom ci yeneen i mbir lay daal di dugg La tenue tàggatoo tok dañuy ci sport saison 2013 ah ca dëgg-dëgg ñu ci bëri seen yaakaar dafa tas ci ñoom képp ku wax mbër yu ndaw yi da naan kan moo leen të dan naan kooku mooy Siteu waaye Siteu gis na ku ko të booy sëy la tudd daal di koy daan jël boo xam ni bett nañu bëri waaye Tidiane Faye nga xam mooy le professeur de Lansar ci wàllu lamb moom nan wax doyen fac science ci wàllu technique wane na fi lu ne mais jamono yi nee na ay këyitam ay bataaxalam crayon yeeg rapporteur yeeg nga xam mooy lépp réer na ko bi mu dajee ki nga xam ni jos daa bëre ba wér ko tër ko mu nekk loo xam ne bett nañu bëri waaye Moussa Dioum bëri na fi tamit waaye la bett yu bëri mooy poids bi mu yokk neen dafa diis moo tax mu amoon defet ci kanamu ki nga xam moo di Sa Thiès war na nag xoolaat boppam waaye fan ko daanele mooy pap Mor Lo mu nga xam ni ci dëgg-dëgg matul sax 100 kilos waaye nekk ko xam ni ay merveille la daan def daan nañ ko daan boo xam ni ki nga xam mooy Ahmed Dem moo ko nag daal di koy tër waaye Mame Balla dem na ba bël si daan ko kon nag pap Mor Lo war na xoolaat bopp kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan laata ñu wéyal suñu revue de presse quotidienne duñ def lu dul dikk ak yéen ci suñu info Twitter kon nag mare ma Pène bugguma bi ci kaw bugguma bi ci suuf bi ci dëgg bi boo ko jeqi nga bés bouton jox nu boobu parce que doy na waar xam ngeen ni ci wàllu média coow yàgg na lëmbee réew mi ginnaaw bi nga xam ni Hervé génne woon na photom yooyu fi nga xam moo di Sicap Liberté ak coow xale yi amoon fi nga xam moo di Grand Yoff mu mel ni nag Sénégal dugg nañ ci beneen mbir boo xam ni dañuy laaj ndax ci biir Sénégal la ñu lekk ba léegi ba tax na dañu lancé casting ci wàllu pornographie maanaam film boo xam ni ci wàllu sëyante fa mu gën a ñaawee foofu lañ koy defee loolu nag nee lu am lu tolloog cinquante candidats bokkoon nañ ci juróom fukki jigéen ñoo xam dañoo jug ngir bokk ci lu mel noonu mu nekk mbir moo xam dafa yéeme bi nu gëstoo li nga xam moo di photo yi lañ ca teg moo di la hawla wala quwwata ay jigéen ñoo xamante ni. danoo summeeku ba set wecc ñii sol ay bot ñii sol ay baa am na ci jigéen ñoo xam sax danoo ëmb am na ci ñoo xam danoo sëyoon sax ba tas ñu danoo bokk ci mbir yu mel noonu mu nekk loo xam dafa doy waar ban ko gënee gëstu na ay tubaab ñoo doon def li nga xam moo di casting am na ku jigéen ko xam mi ngi dëkk parcelle unité 15 xammee nañ ko ci image yooyu jigéen la boo xam ni nee nañ du génn bëccëg guddi rek lay génn bëccëg kenn du ko gis waxam bëriwul du dugg ci lu yoonam nekkul loolu nekk loo xam dafa daal di doy waar pornographie ci biir Sénégal fi nga xamante ni mooy sama télé ñom ñoko daldi indi ci walu info Twitter muy deugal lan len waxoon rek jamono yi nak senegal ak dakaru ñor gi ci bopam mo ni tip dag ca buñ moytuwul caaye ji dina romb li nga xam modi di yi ni put ak si fi nga xam modi test ni bu fekk ni kilifa yi jugunu lolu moy sen info Twitter. kon nak mbokk ak xarit ci ñuy seetaan suñu revue de presse quotidienne dafa melni ni agsi nañ ca ca pandaw ga waaye nak la tañu kay ndar kep xam nga ni Sénégal dafa am ay mbandarga yoo xam ni mooy wane ni moom nañ suñu bopp benn bi ñu koy woy hymne national ak nga xam mooy suñu drapeau ak li nga xam mooy suñu emblème ndekete yoo mbir moomu dafa am histoire kii nga xam ni moo njëkk a jiite réew mi ñu naan ko Léopold Sédar Senghor président boobu nag moom séeréer la boo xam ni papaam mi ngi tudd Mind yi min jogoy boobu jogoy boobu nag turu gaynde la ci séeréer moo tax boo leen xoolee fépp fu ñu def emblème mu Sénégal gaynde lañ fay def ñu naan gaynde Njaay mara wàcc loolu mi ngi ko jëlee ci turu baayam ndekete yo président Senghor fofo, drapeau bi vert jaune rouge la Why ak drapeau bu yo ndekete yo Senghor da don bañ ñu nuroo ñaar vous mu jël li nga xam moy biddéew étoile bi am juroomi bop mu def ko ci bir ndekete yo étoile bobu fan la ko jëlee dafa jekki-jekki dugg ci nga xam drapeau

Senghor yemul foofu li nga xam moo di hymne national beeg drapeau beeg yooyu bu buñ ko xoolee ba pare gis nañ ni léeg-léeg bu ñuy tamponné def li nga xam mooy baobab mu nekk nag garab goo xam ni dafa yàgg ci Sénégal am doole lool loolu nag baobab boobu guy la goo xam ni seen biir kër la nekkoon boo duggee ci ëtt ba booy dem ca waañ ba fa la guy ga nekkoon yàgg fa loolu ba mu juddoo fa la ko fekk loolu la jël nag boole ko ci nga xam mooy emblème mu Sénégal loolu ndekete yoo Senghor moo ko def daal di koy mandargalay Sénégal loolu ci yéene kaay bi nga xam mooy le populaire foofu ngeen koy gisee boo leen ko bëggee gëstu kon nag mbokk xarit ci doon seetaan revue de presse quotidienne bi agsi nañ fi nga xam fi la ñuy tàggatoo ak yéen laata ñuy tàggatoo nag damay jaajëfal équipe technique bi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci wàllu xarala bi di ci jiital ki nga xam moo di Ndeye Fatou Warxa Samb moom moo nekkoon ci bët wax fàng bi nga xam moo di caméra ki nga xam moo di Marama Pène ci wàllu réalisation bi ak li nga xam mooy montage bi jàppale bi tamit ki nga xam moo di Om Zito Samb moom tamit loxo xam ngi ci biir may jaajëfal ñi ni seetaan ci àdduna bi yëpp ma fàtte sama doomu nday Jok Malick promoteur ba nekk ca Londres Angleterre sama turandoo Bara Fall Albani Ñox ñoo ngi koy nuyu di leen wax ni nag mucc ak xéewal du ànd ju sax tàkk revue de presse quotidienne bi suba lay dellu si waat incha